Euh, soxla si gis nga sama problème fi mu jógee su ma leen ko nettalee ak complot bi di mu demee waaw loolu loolu loolu loolu xam naa ne émission beneen émission lay doon mais vidéo bi gendarme bi ñuy wax Abdou Aziz mbay Abdou Aziz Mbaye man moo ma filmé toog maa toog nii mu toog nii ki jigéen ki gendarme la ñun ñett ñoo ne ci ginnaaw ak waa ji doon dawal bi ma gëddee noonu sax ci la waa ji ne mais non ki dafay dal sama kaw waaye mënatu ko ma ne ko nag may mënatu ma ne ko am takkal laaj leen ñoom ma ne ko am mënatu leen am. waaw mais avant mënatu bi mais dañ moo ne ma. Mhm. ñëwal ñu gérer ko ma ne ko nan lañ koy gérer. déglu leen bu baax vidéo bi mu ciy wax. jërë leen ko gën a mag dañ leen di jàpp jërë leen ko mais ni nga bëgg a doxale la dama dama ragal dama ñeme ci ma tiit moo tax nga calme non aw ma fii fii fii kon ak suma bakkanu njaboot yàlla ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon si oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox waaw kii mbaa baax ku la ko joxoon ku la ko joxoon kanu bi moom dafa voyage sax wallaay dafa voyage man dafa ma ko joxoon bu yëngatu sinon affaire day seere ma grand grand yow li ci li ngeen di def arrangé wu. nañ ko gérer. dañ koy gérer. bàyyi bu foofu day doy waar. Ah, foofu day doy waar. non bàyyi wax leen ma doxalee ma nu muy ma gérer ko léegi. non bàyyi bu ñu eggee. ah oui ma capitaine grand. ni nga ko bëgg a doxalee la mais ko wax nga nekk ba pare. ak sama bakkanu doom. Ah, voilà ak sama bakkanu doom. moom laaj na ma ci sax cinquante millions pour ñu gérer ko. moom Abdou Aziz Mbaye gendarme. barke Serigne Saliou Mbacke. na ma boo tegee cinquante millions ci kaw taabal ñu gérer ko parce que nag député nga kilifa nga ci réew mi lii bu bu jëmee kaw man ne ko man yàqu na loolu ngeen bëggoon yàqu na waaw. ma ne ko man loolu ah déedéet man man maa wàcc oto bi ñëw toog foofu man ci kanam laa toogoon sama oto maa ko doon dawal. man leen ah, sama oto la benn ñaareel bi mooy. li ñu doon wax naan ay faux lan la génne ay billets noirs cent francs faux new newu ci. du xaalis ay faux bi ay ay billets la. loo xamee ci sama benn xarit koo xamee ni xarit la ci man ma séqoon ak moom leneen ay ab mbirum terrain la ñu séqoon man ak moom mu jaay sama terrain avec des preuves. ba mu def trois mois ki taxoon ma xam ko fexe ba mu ñëw ma saisir mooy mallette boobu nga ngeen di gis noonu. non non bu ma su ma ko xooloon dina def sama oto ñaari fan. mais du xaalis parce que pour man moom ma jaay matériel yi ngay gis nii télé yi nga gis nii moom ma ko jaay ak mboolem ordinateur bu fi ne moo ma ko jaay ah mais nag comme def na noonu xaar ba guddi mu woo ma ne am na ku ma la booleel jox naa ko sa xaalis moo andi lii moo andi lii yëpp. lii rek lii rek laa yor lii rek laa yor ko man dañ ma ko jaayoon man dañ ma ko jaayoon lii rek laa yor waaw lii rek laa yor billaahi ah, wuy ma wuy ma ay ak sama tray bàmmeel amul amatu grand fii essence eh, interdit la la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay yàqu naa ay waay man man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay keroog ba looluy am capitaine Touré moo jiite woon opération moom capitaine Touré mi andi lu mat plus de vingt éléments mel ni ku jël si bandi non daf ma woo ma ñëw daf ko jaaree si Omar Samb Samb woo ma ma ñëw mu ne sa waay boole nañu Pape Malick boole nañu jox na sa xaalis indi ma leetam ma ñëw di ko indi mais lu ne pexe bu nekk ñu laal ko capitaine Touré moo jiite woon opération bi moom bi ma toogee si oto bi commencement bi sax mi ma doon filmé mais filmé wul lii moom filmé lii parce que boobu ñoom li ñu bëggoon mooy sabatu nguuru Macky Sall en tant que ay gendarme sabatu nguuru Macky Sall parce que c'est des opposants c'est des opposants ñoom ñoom capitaine Touré ñi ñëpp doon doon sédduku waaye ñoom danañu xam ni man du ma ko ñuy foye tey ma xëy gis vidéo bi génn vidéo bi du kenn Abdou Aziz Mbaye daal moo ma filmé oh, oh ba man may ndonga daara barke Serigne Saliou Mbacke fii laa toog di ree yëngalu ma naa sama waa kër yi day ma dem ne ma papa ma ree ba daanu si suuf yëngalu man leen lii uh-huh. ba tey li ñuy wax rek gendarmerie am na ña fa nekk ñoo xam ne ba tey dañuy saboté nguuru Macky Sall des éléments yoo parce que lii ci gendarmerie la jógee lii moom ñëpp nangu nañu Sénégal gépp nangu nañu ne lii ci gendarmerie la jógee un gendarmerie professionnel un gendarme professionnel dina doxalee nii déjà benn waruma woon sax filmer parce que bu dul dara du ma moroomam du ma moroomu baayam tooñ na ma